nationale et internationale lii du meeting lii point de presse bi ñëw pour fësal suñu coalition ak tamit fësal suñu yéene ci Sénégal ak ci ëllëgu Sénégal ngeen may ma nag balaa may tàmbali waxtaan bi ci turu coalition Sàmm Sa Kàddu te yàlla def ma nekk ci tête de liste nationale may ma ñu nuyu gërëm sant te sargal suñu kilifa yi di Serigne Moustapha Sy du PUR ak Khalifa Ababacar Sall bu Taxawu Sénégal leen di gërëm di leen sant ci opportunité bu may tey jeunesse sénégalaise mën a taxaw mën a waxal askanam te mën a doxal askanam ndax Sénégal mën a jëm kanam maa ngi dégg léegi nii suma xarit di Assane Diouf di wax ci Dakar ma bëggoon dalal xelam Assane Dakar Dakar dëkku ndaanaan la Assane damay dalal sa xel Dakar duñ ko fi dénk benn sàcckat te sàcc lu fi bonne Assane may dalal sa xel Assane ñun suñu demee ba tànn tête de liste département de Dakar député maire Babacar Mbaye toftal ay góor ak ay jigéen te ñoom ñëpp seen loxo yi set parce que ñun Dakar kese ket rek dong la ñu am Babacar Mbengue su ngeen laajee Babacar Mbengue fan la jógee dinañ leen wax Babacar Mbengue Hann bel lay bàyyee su ngeen laajee Ngouda Diène fan la jógee ñu leen Médina la bàyyee ko mooy sëñu kanam su ngeen laajee honorable député maire Jean Baptiste Diouf fan la jógee ñu leen Grand Dakar la bàyyee ku lim juum wante fii dama ne golo du bay baaxul di ko dundee moom bi Dakar du fi am ñu fiy toog tey ne dañu soxla Dakar mënuñu leen wax ci ban gox dañuy bàyyeekoo biir Dakar amuñu base te tekkiwuñu dara biir Dakar musuñu fi tekk dara kon nag du tey dañ fiy tekki dara nañu bàyyi seen xeetu dóor marto yi te wax askan wi fan nañu dugal xaalis yi xaalis bi dañu bëgg a xam fan lañ ko dugal dama ne di dalal seen xel yi Dakar du fi jox benn xeetu immunité parlementaire benn xeetu sàcc ndax mu mën a làqatu pour refuser de répondre à la justice sénégalaise dama ne tubaab nee na il n'y a de fumée sans feu dama ne Sénégal duñ fi fena dañuy yokk rek wante fen amu fi te di ngeen yàbbi xaalis bi di ngeen ñu wax fu ngeen dugal xaalis loolu mooy dëgg te suñ ci eggee ci campagne bi ñoom suñ leen waxulee fu ñu dugal xaalis gi dinañ leen woon fan lañu dugal xaalis gi parce que wax ci mooy lan ñoom dañu rëy làmmiñ suñu demee tey ba ne pat parce que xam nañ bu baax lu ñu def ci ñaawteef moo tax am na ay xeetu ñaawteef mënoo ko fi def te àndoo ak ay kilifa yu mag moo tax haute cour justice boobu am solo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 kàddu dafa am solo ci suñu cosaan ci suñu aada lu tax ñu yokk ci baar wooye ko valeur pour une alternative responsable mooy campagne gi bëgguñu xuloo ak kenn bëgguñu xeex ak kenn bëgguñu teysante ak kenn jaru ko dañu bëgg daal ngeen di gestu baar yi ngeen di partager baar yi ngeen di saytu baar yi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 tubaab nee tubaab nee na képp ku dul wax dëgg nee na yow mi moom da lay woy menteur mooy em na moom la woy fenkat tubaab nee na képp ku mënul nee moom da lay woy incompétent mooy i du noonu tubaab nee na képp kuy dóor katu marto nee na moom da lay wooye manipulateur mooy M du noonu tubaab nag nee na képp ku tële da lay incapable mooy I moo tax mimi boobu way mimi ma bëggoon wax ak ci mimi parce que mimi bi dina xumbati dagal danaa leen fen du bijaaw fen du bijaaw fen nañu ma jot ci réew mi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 maa ngi jotul ci kàddu ya wante de nommé nañu ba nommé kanaar yi ak ginaar yi lépp ngi ci ñoom ñoo fi waxoon suñu fi faloo dinañ fi jële lu ñuy woye ay fonds politique fuñ ci toll ku dul sàmm sa kàddu da ngay fen moom la tubaab di woye menteur te loolu mooy dëkk waxoon nañ leen su ngeen lañ joxee réew mi ci ñaari weer ñu soppi réew mi lan moo ci seen xalaat kon nag moom laa leen doon wax ay incompétent lañu ñoom ñu leen fi waxoon suñ jotee ci réew mi soxlawul ñuy am période de grace léppay soppeeku du noonu waaw loolu su nekkule ay xeetu dóor marto tubaab di ko wooyee manipulation mooy lan du ñoom ñoo fi diggoon ndaw ñi ne suñu faloo mbëkk gaal gi day dakk ñëppay am xëy lu mu bon bon bon ku ci nekk dina am cent cinquante mil francs weer bu nekk waaw loolu gis ngeen seen bopp waaw mooy tële moom la tubaab di wooyee incapable moo tax lii di fulla ak fayda mooy mimi boobu mimi booy mimi ñu xamal ko ni que dëkk bi ay goloom duñ fi yeewu maa ngi jëgalu ci kàddu yi parce que moom mimi dafa yebaate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 question de citoyen ak question de citoyenneté la parce que Sénégal mënuñu nangu fu mu toll tey ay nit continuer di continuer di bëgg a gëlëmal nit ñi di bëgg a nax nit ñi ndax lan ndax nguur ak bëgg a nguur lu tax mën na leen élection yi foofu ngeen jox ndam jox majorité opposition yéen Sénégal est-ce que xalaat ngeen tey am ngeen président de la République est que xalaat ngeen ngeen kan ngeen fal da ngeen fal président wala premier ministre ngeen fal xam ngeen président ngeen fal wante opposition bi suñu amee ndam incha allah le 17 novembre 2024 di ngeen soog a am président de la république parce que booba ñun suñu taxawaay mooy di contrôler l'action gouvernementale moom di président de la république dañ ko fal pour juróomi at mandat wu juróomi at boo moom fauteuil bu mu toog boobaa nag il pourra remplir le fauteuil de président de la république parce que pour l'instant Sénégal amagul président de la république te ñoom du ñu xamul dañ leen dénkul canapé présidentiel dañ leen dañ leen dénk fauteuil présidentiel fauteuil bi nag mu am koy jéem a ak président loolu la ñu bëgg nag mu dakk biir Sénégal mbokk yi du ma guddal gis ngeen élection yi jarul waa yi du mu leen doon wax démb ak ki démb na ngeen xoolaat tey taxawaayam ngeen xool lan la ci def ak lan ak ak tamit lan la leen diggoon ak fan la toll ci lu mu leen diggoon loolu kese mooy wax ci parce que nag juróom-ñaari weer daanaka léegi mu mën at dara soppeekuwul ci Sénégal dara dëkk bi gën a metti ñu gën a tar xale yi ñu gën a sonn xale yi ñu ngi ci àll bi di mbëkk gaal di wuti yoonu Nicaragua ak ñoom seen suñu yaay nag ngeen xam ngeen bi baax fi waxee xam ngeen fu ceeb bi toll xam ngeen fu courant bi toll xam ngeen fu suukar bi toll xam ngeen fu jàng bi toll xam ngeen fu euh, santé bi toll xam ngeen lépp lu xew ci dëkk moo tax nañu joxante loxo te voté coalition sàmm sa kàddu ndax opposition mën a nekk une fois de plus une valeur alternative responsable ci assemblée nationale na ngeen partagé na ngeen gëstu vaar yi na ngeen saytu vaar yi te su ngeen demee ci urne pour voter na ngeen voter ngir yàlla te ngir ëllëgu Sénégal loolu la ko loolu am solo ñu ngi leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf mbokk yi. asalaamualeykum asalaamualeykum maa ngi. nuyu ñi teew ci salle bi yëpp di am mbégte jël kàddu ci kanamu assistance bu am solo bi mais surtout ci jotaay boo xam ne suma nawle yi ma ko seqal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 yamul ci wàllu politique dong bërki Dembo Ndiaye waa tuuba am nañu fi ay jafejafe jafe sëñ Mountakha moo génne xaalisam yeneen ci ay doomu senegal génne seenu gafa ngir taxawu waa tuuba waaye ci jamono boobu moom monsieur le président délégué auprès du premier ministre ma ngay tambal mbalu ca Kédougou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 fekk leen ci seeni jafe-jafe mais cher leader cher leader xam naa fi seen xol toll ci Sénégal anta yow yaay nga lépp lu jëm ci njaboot gi da nga ciy bàyyi xel wóor na ma ne lu ngeen am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 dégg naa kenn ci ñoom naan ku sàcc xaalis bi bu ko sàccee moo tey waaye gouvernement gat sa bu yeggee ci ministre maa tey xam ngeen ne kon yegg waaye nag ma ne le message c'est le 17 novembre incha allah l'opposition sera majoritaire à l'Assemblée nationale. takkatu juuti yi danañ ñu abal. cuune yi dananu fi puus ndax sa xandang yi dananu randu opposition bi jël majorité vive la coalition sàmm sa kàddu vive l' opposition sénégalaise jërëjëf diaspora bi di jaajëfal toute la presse nationale ak internationale di remercier ci seen sénégalais ñoo ne dañu bëgg opolis opposition booloo def benn say ñun dañoo déglu askan bi ñun dañoo topp bëgg-bëggu askan bi ñu booloo def benn say ñu tuddee suñu bopp la coalition sàmm sa kàddu le groupe nekk ci wax waxeet te loolu sénégalais yi bëgguñu ko nawuñu ko li fi xew mooy dafa am nguur gi fi nekk boo xam ne ñeme na jël kayit bind bu ëllëgee mu ne ñu ndax en bàyyi dama ne na fii kuy aay newu fi fii kuy fo newu fi ñun liggéey la bëgg ndax ñu mën a liggéeyal sénégalais yi loolu mooy la solution définitive au problème des Sénégalais dafa am lu fi xew bu yàggul dara mooy la ñu demoon élection présidentielle ñu bëri ci ñun ñenn ci ñun wër Sénégal ngir présenter Sénégalais yi suñu programme ak suñu yéene 24 mars 2024 le peuple sénégalais wanewaat sa maturité politique le peuple sénégalais wanewaat li tax ñun ñu ne le Sénégal nous un pays de démocratie ñu fal de façon démocratique un président de la République kenn bañu ko ñun ci njëkk a génn bind ne ko yaa ci la ñu mu def investiture ñu dem taxaw fa teew fa di ñaan yàlla jàmm sax ci biir Sénégal loolu mooy suñu bébé parce que nous nous sommes bi loolu jàllee histoire laa leen di wax bi loolu jàllee ñu ëpp ci ñun ñi nga xam ne demoon nañu élection présidentielle dañoo delluwaat ci suñu liggéey dañoo delluwaat ci suñuy base dañoo noppi lu tax parce que dañoo jàpp ne waroon nañu leen may ñu mën a liggéey ñoo ne woon dañoo mën nañu wane li ñu mën li ma jaaxal mooy biñ leen ëppalee juróom ñaari sondeel ci lañu fay sept mois ñu wane seen tële ak seenu cuune te wax dëgg fa yàlla Sénégal dafa toll boo xam ne mënatuñu supporter autant de souffrance et autant de peine et autant de douleur ñu bëgg dafa am lu ñu xeexoon ba am ko moom mooy jële fii la politique politicienne ak certaines pratiques politique ñi nga xam ne jël nañu en otage le peuple sénégalais ndaxte dañoo def ñaar ñetti at boo xam ne réew mi la leneen lu dul waxu politique ñu amoon yaakaar ne bu rupture bi nga xam ne moom lañ doon xeex amee ñu amoon yaakaar ne bu relève bi xewee Sénégal dina teguwaat ci yoonu liggéey wante yaakaar tas na peuple sénégalais yéen a ko fekkee yéen a ko déggandoo ñoom ñoo génn ñu woo opposition ci cooki ñoom ñoo génn bëgg a woo opposition ci xeex ak a ñaawte bëgg ñoo woo ci saagante bëgg ñoo woo ci dàkkasante ñun ñu ne leen ñoo bañ ndaxte du loolu la sénégalais yi soxla dañoo mën a cooki wante li ñu ko jaral xam ngeen mooy lan déedéet bu dee dina régler problème mu xëyu ndawum xale yi waaw bu dee dina tax tere xale yi di jël géej gi mu jële leen ñàkk seen bakkan di dem bitim réew mi toog ci réew mi waaw loolu mun nañ cee wax bu dee dina régler le problème de la vie waaw loolu ñun dinañ ci wax bu fekkente ne dinañu wax inondation yi waaw loolu ñun seen opposition responsable dinañ ci wax wante nag ku bëgg a siiw bëgg ñu toog di la waxal ñun loolu amuñu jot bi sénégalais yi tànnuñu ko ndaxte sénégalais yi dañoo xiif amoon yaakaar ci benn projet mais ku xamul sa ngoon ku xamul sa ëllëg buñ la waxee vision 2050 foo jëm balaa nga naan ne fa faa nga daan naan ne fa projet am na ak amul c'est la question que tout le monde se pose est-ce qu'une politique je ne sais pas mais c'est dommage parce que des jeunes et des Sénégalais sont tout simplement parce que dañ ko tout simplement parce que dañ si amoon yaakaar donc ñun nag mënuñu toog di seetaan ak suñu façon politique ak suñuy doxalin ak suñuy melin li ñu war dinañ ko def ba mu mat sëkk incha allahu rabbi may woon nag sama mbokk jigéen ñi ak fépp fu ñu mën ci nekk di leen wax ne gis ngeen place bi nga xam ne jox nañ ko jigéen bi ñu waree fal seeni gouvernement gis ngeen place bi nga xam ne jox nañ ko jigéen ñi bi ñuy nommer seeni direction muy place bu néew lool soxna yi ku ndóobin rey sa mbaam boo gisee lu ñuul na daw rendez bii suñu rendez la parce que nee nañu ku falu fii ci Sénégal jigéen na la fal bëggatuñu ku ñu xottil ay niroole bëggatuñu ku ñu joxe musóor bëggatuñu ku ñuy woo ci mobilisation assemblée nationale bi donte parité am na ñun jigéen ñi dinañ ci saf saf di leen wax nag bu ñu raté le rendez-vous bu ci kenn naagu 17 novembre dinañu battre campagne te dañu ko war a liggéey koñ ak gox koñ ak koñ gox gox bu ci kenn tàyyi bu ci kenn nelaw ndaxte c'est l'avenir du peuple sénégalais qui est en jeu c'est l'avenir de la jeunesse sénégalaise qui est en jeu c'est l'avenir des femmes sénégalaises qui est en jeu et de notre nation qui et nous la coalition sàmm sa kàddu jiital suñu député maire incha allahu rabi Barthélémy Toye Dias dinañu yegg boo xamante ne ñoom sañuñu tufaa yegg ndaxte dañoo wax waxeet dinañu dugg foo xamante ne mënatuñ faa dem ndaxte seen kàddu ndax dañ koo sàmmut on se rapproche du peuple et des et nous on vous dira la vérité te ñun dañoo sàmm suñu kàddu benn carte lekk ci am ndaxte sa carte mooy sa kàddu boo duggee ci bañ gàcce nga bëgg sàmm sa kàddu amul leneen looy def lu nga jël bulletin de vote bi nga xam ne bind nañ ci sàmm sa kàddu mu jaune te vert ñu def si photo Barthélémy Toye Dias nga épi nga dugal ko si ngir ñu sàmm sa kàddu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 di leen sant di leen wax ne wóolu leen wóolu leen seeni doom le 17 novembre dinañ campagne campagne bu am solo bu saf sap jël majorité bi jox ko l'opposition ngir mu mën a contrôler l'action de l'exécutif tey bés bi ñuy def sunu bés bi dafa am solo ndax Ghana dëkk bu am solo la tey tey jii Ghana jël na majorité bi jox ko opposition ci assemblée nationale bu doy waar bu ñu war a bàyyi xel suñu réew am na pouvoir boo xam ne dañ ko tuddee le pouvoir législatif te ñi ñuy votel ñuy ay député ñu war a teewal askan bi assemblée nationale jàpp nañ ne assamble nationale boobu rek la askan bi yaakaar ndax justice bi ñoom tëju nañu nee nañ def nañ seeni réforme ñu ngi xaar exécutif bi gis ngeen ne accaparé nañ ko xamuñu kuy président ak ku dul président benn moo ñu desee muy assemblée nationale suñu bàyyee assemblée nationale tëjal nañu buntu Sénégal donc assamble nationale rek moo war a jouer pleinement son rôle pour que fii ñu jëm mu am lu ñuy wax équilibre des pouvoirs suñu citoyens yi nga xamante ne ne ñoom de ñu ngi si ay jafe-jafe yu méttee méttee métti te gis ngeen ko dund gi seer na jafe-jafe yi bëri na ku feebar doo faju nit ñi bu ñu dugal seen doom yi école sax problème la ñooñu nag mënuñu konte lu dul ay dirigeants yi nga xamante ne dañuy dem représenter leen assemblée nationale mu doon ay député yu digne mooy aw député yu am valeur mooy doon am député yu am ay vertu te mënuñu ko weesu lu dul fii sàmm sa kàddu nga xamante ne day ñi fi toog gis ngeen leen wane nañu seen preuve moo tax jàpp nañ ne nag majorité assemblée nationale rek moo mën a régler problème mu réew mi opposition am majorité assemblée nationale waaye nag ñoom xam nañ ne ci loolu la ñu jëm pour tere loolu am dañoo commencé di indi ay argument ne ñoom de suñu leen joxul majorité am na loo xamante ne duñ ko mën a def bokk na ci loolu mooy ñu ne cour haute cour de justice bi nga xamante ne moo war a juger ñenn ñi comme ministre yi su ñu amul majorité dañ ko teg ñu ne leen déedéet teg leen boobu boobu baaxul ndax ñun ñii sàmm sa kàddu jàpp nañ ne reddition des comptes dafa war a am jàpp nañ ne képp ku gérer war nañ la saytu jàpp nañ ne haute cour de justice loi bi teg na ko ba pare te su dee teg nga ko benn justice bu ñuy teg la rek waaye dinañ fexe ba lu ñu bëgg def muy règlement de compte du am ci réew mi justice dina am haute cour de justice dinañ ko teg suñu toogee waaye règlement de compte du am ci réew mi te haute cour de justice nag ñu nekkoon ministre ak ñu nekk tey ministre yépp la concerné képp koo xamante ne jël nga alalu askan bi da ko war a delloo askan bi beneen bi mooy ñoom de dañoo jàpp na ne ne tey suñu doom yi ak suñu frères yi ak suñu sœurs yi nga xamante ne dañ leen a faat si événement yi am te yàggul saa yu ñu toogee ñu ngi wax ci loolu loolu naqar la bu Sénégal yépp bokk ñun ñépp am nañ ci ay mbokk yu ci dem waaye dañ leen di wax lu ñuy wax ñoom lañ ko jëfe ba bu loi d'amnistie boobu di am lan lañu def pour empêcher loi d'amnistie bi li ñu waroon def yamul rek ci moment vote bi parce que loi Ezzan ba mu amee ku mel ni Khalifa Sall Ababacar Sall nga xamante ne fii la bokk ci coalition bi moom ak ñeneen dañoo dem conseil constitutionnel pour wax leen ne lii loi la boo xam ne dañ ko war a dàq ñoom amoon nañ possibilité dem conseil constitutionnel demuñu conseil constitutionnel. moo tax ñun sàmm sa kàddu dañ ne suñu toogee na leer sénégalais yépp que dinañ dugal proposition de loi. pour que loi bu amnistie crime yooyu loi boobu ñu dindi ko ba mu fet wecc sàmm sa kàddu tamit taxawaay bu mu war a am pour ñu leeral loolu pour képp koo xamante ne def na si mbir mi yoon teg la loxo sàmm sa kàddu bi si am taxawaay bu war sëkk ñu jàpp nag ne régime bi nag ginnaaw ba ñu dàqee yooyu yëpp amatuñu argument nee nañ dañoo indi argument wu blocage maanaam soo leen ñu falul soo leen ñu joxul majorité dañuy bloquer réew mi te koo xam ne moo jiite seen tête de si boppam vidéo baa ngi fii nee kenn mënul bloquer Sénégal kenn mënul bloquer assemblée nationale moom si boppam moo ne su ñu joxee majorité opposition kenn mënul bloquer assemblée nationale loolu leer na lay boobu nañ ko teg fële waaye wax ko tamit ñàkk xam la ndax majorité su amee si biir opposition dañuy dem si lu ñuy wax cohabitation cohabitation lu muy tekki mooy si biir gouvernement bi ak si biir parlement bi yépp dafay am ñoo xamante ne dañuy jóge ci kujje gi ñu am seeni programme indi ñee indi seen programme ndax nag réew mi suñ ko bàyyee ci impasse la jëm laaj na sàmm sa kàddu dugal ci loxoom ba nga xamante ne fi ñu jëm du doon koo xamante ne fu doy war la moo tax moo tax assemblée nationale soo fa amee majorité indiwul blocage au contraire cohabitation lay indi ñu daal di jàpp nag ne sàmm sa kàddu teewam ci biir assemblée national lépp loo xamante ne ne dafa war a jëm ci l'action gouvernementale ñu contrôler ko war a def ay commission d'enquête parlementaire di leeral mbir yi xam ngeen mbirum affaire bi leerul xam ngeen ne leerul ñoom xam nañ ne leerul dinañ ko leeral dinañ ko leeral ba mu leer xam ngeen ne yeneen problème yi fi am yépp gis ngeen ko ONAS beeg yépp ñu koy nëpp nëppal ñoom ci seen bopp ñuy wër plateau yi di ko défendre suñu toogee dinañ ko leeral suñu amee majorité assemblée nationale dinañ ko leeral lépp loo xam ne mu ngi jëm ci politique d'évaluation des politiques de des politiques publiques lépp loo xamante mu ngi jëm ci vote loi nan la ñu war a voté ñii toog fii xam ngeen ne am ngeen am nañu fulla ak fayda buy tax lépp luy war a nekk tegu ci yoon bi assemblée nationale ñu teg ko ci yoon donc coalition sàmm sa kàddu ñooñu mu dajale ñëpp xam nañu ne Sénégal yëpp xam nañ ne engagement yi ñu jël suñu déggee assemblée nationale dinañ ko respecté sàmm sa kàddu tamit li jëm ci proposition de loi nga xamante ne ne suñu amee majorité parce que ñëpp xam nañ ne lëkkaloo am na muy ay intercoalition suñu amee majorité majorité bi dina doon ñun ak ñeneen ak ñeneen waaye taxawaay ñun buñ ci am sàmm sàmm sa kàddu mooy lépp luy proposition de loi boo xam ne njëriñu askan bi la dinañ ko seytu avec la nouvelle majorité pour ñu redresser le Sénégal pour ñu defaraat le Sénégal parce que Sénégal daf ñu soxla sàmm sa kàddu dina doon sentinelle taxaw xool xippi ñuy bët ndax ñoom mënuñ ñoo nax mënuñ ñoo tuur lëndëm mënuñ ñoo manipuler lu ñu def xam nañ ko fu ñu jëm xam nañ ko sàmm sa kàddu nag taxawaayam déjà soo xoolee ñu toog autour de la sentinelle boobu ñu ngi koy jouer rôle boobu dina rawati encore suñu nekkee biir assemblée nationale. sàmm sa kàddu dina nekk une force de proposition ndax dañu bëgg gouvernement gouvernance boo xam ne dafa leer nañ fii may wax ak yéen kenn xamul budget bi nan la demee mu ngi am une nébuleuse budgétaire kenn xamul nan la ñuy lebee ak ban anam la ñuy lebee dinañ leeral loolu yépp li jëm si reddition des comptes dinañ fexe ba lépp mu tegu si yoon waaye aussi dinañ ñëw si askan bi wax ak ñoom nan lañ leen teewalee si biir assemblée nationale asalaamaaleykum wa rahmatullah